Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak Zahra Iyane Thiam nekk candidate ca mairie bu Sicap Liberté ñoo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yér yéen a ñu xëyandoo yéen a kaay gi di réew ko di jen xëy duñu xibaar naan ñu lu garaaw a garaaw moo xew ni ki démb ca tribunalum Dakar lu yéeme la ñu fa doon atte ndax dafa am benn mécanicien boo xam ne Moussa Fall la tudd benn jigéen moo ko jëloon ngir mu di ko dawala la jigéen bi ba mu demee ba mu yàgg mu daal di koy dàq Moussa Fall moomee di mécanicien dàq gi ñu ko dàq mu daal di koy naqar yi ba jégg dayo mu bàyyi ba ndaw si gaare oto bi mu dem dagg frein yi ndaw si oto bi dem na ba nar a accident bi mu demee ba nar a accidenté ci la xool nag ñu ne ko yow say frein dañu ko dagg ndaw si nag daal porte plainte contre x gars bi ñu defee ab enquête ci la xam ne Moussa Fall mécanicien boobee moo def googale njombe tëj nañ ko lu toll si juróom benn weeri kasu ñett yi lay tëdd waaye nag daan koy alamaan lu toll ci deux cent cinquante mille francs journal bi nee na Moussa Fall moomay Rufisque la dëkk yéen gi sa daal di mere Mali yéenekaay gi di Les xëy di ñu xibaar naan ñu changement yu bari am na ci cabinet d'instruction yi ndax juge bi di Abdoulaye Assane Thioune mi nekkoon deuxième cabinet jëlee nañ ko fa léegi juge du siège la maanaam day atte Mamadou Seck mi nga xam ne moo nekkoon troisième cabinet moom jëlee nañ ko fa yóbbu nañ ko deuxième cabinet Thioune mi nekkoon deuxième cabinet ñu jël ko yóbbu ko juge du siège ana lan moo ko waral mbaadu ay sanction ci ni Barthélémy Dias nee na amul lenn loo xam ne Banda Diouf def na ko fi lu dul jël mairie bi jaay ko Macky Sall amul benn bilan yéene kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Mame Mbaye mi nga xam ne mooy candidat Sénégal 2035 ci ville bu Ndakaaru daat nay dal bu baax baax ci ñi nga xam ne ñooy ay concurrent ma nee na candidat bii nga xam ne mooy candidat Yewwi Askan Wi ci diiwaanu Ndakaaru bala muy wax ci lu jëm ci wàllum programme dafa war a wax ci bilan bi nga xam ne am na ko ba pare te candidat la boo xam ne dafa bëgg a gagné ngir na xeexee ko nguura bu dee nag yeneen candidat yi ci benn bokk yaakaar ñoom li leen yitteel jamono mooy conforter seeni position ci biir gouvernement bi keneen koo xam ne jàpp na ne day gagné élection yi ci diiwaanu Ndakaaru mooy Pape Diop mi nga xam ne mooy candidat coalition bokk gis-gis ci ville bu Ndakaaru ginnaaw Ngor ak Yofa ak Jàmmalaay ak Cambérène niki démb journal bii di Vox Populi ak L'As nee na Pape Diop a nga woon ca diiwaanu Wakam yéen a kaay gii di l'info xëy di ñu xibaar naan ñu benn bokk yaakaar jamono ji pëccëxoo gu rëy moo fa am ndax ca diiwaanu Louga pëccëxoo na ca diiwaanu Saint-Louis ca diiwaanu Kolda sa diiwaanu Ziguinchor ci Ndakaaru ca Mbuur ca Mbàkke ca Kaolack foo fi xool ci benn bokk yaakaar tasaaroo dëggantaan moo fa am enquête yéen a kaay nee na élection yi lu jëm ci wàllum mystique wàllum xarxa fuuxa bëri na ci ndax bëri na ay candidat yoo xam ne dañuy dem solliciter ñi nga xam ne ñooy jinne yi Laas Badiane ci journal bi nee na am na benn nijaayam boo xam ne bi ñu ko investir ci yeewi askan wi booba ba léegi dafa daal di paralysé yéen gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu élection locale yi ñi nga xam ne ñooy loué ay chaise ak ay bâche jamono ji ñoom waxatuñ dara seeni mbir ma ngi dox yéen gi nee na cadre unitaire de l'islam jamono ji seeni mbir daan nañu koy jëmale gars yi ñoo ngi signé journal bi nee na Soham Wardini daat nay signé li nga xam ne mooy charte non violence yéenekaay gi la Le Quotidien ñu xëy fekk fa archevêque bu Ndakaaru moom daat nay woote li nga xam ne moo jëm ci wàllum jàmm ci élection yi laas yéenekaay nee na Abdoulaye Diouf Sarr wax na ci charte non violence bi nee na nag charte bi ñi nga xam ne ñoo ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne ñooy def violence ndax nee na ñoom waa Benno Bokk Yaakaar musuñoo yëngutu ci lu jëm ci wàllum violence Vox Populi nee na cadre unitaire de l'islam lu toll ci juróomi engagement la ñu tegal ñi nga xam ne ñooy way politique yi libération ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko moom nag daal nay sulli ay mbóot yu doy waar a doy waar a def ay njuuj njaaj bëgg leer ne sàcc élection yi ñoom mënuñu ko def fii nga xam ne mooy Ziguinchor journal bi nee na ak préfet moom la Ousmane Sonko wax ne ñoo gàntal li nga xam ne mooy fraude bi benn bokk yaakaar bëggoon a amal sa diiwaanu Ziguinchor yéen a kaay gi di mandat xëy duñu xibaar naan ñu campagne bi tax na ministre yi ak directeur généraux yi jamono ji génn nañ seeni bureau dem campagne yi journal bii di Le Quotidien nee na Synpics si ndëpp la doon def waaye nag mbir mi dafa mel ni dese naa sotte ndax patron de presse yi ñëwuñu woon yéen kaay gi di réew mi Quotidien nee na ASP yi ñoom nag yokkal nañ leen toll ci benn at seen contrat waaye nag ñoom d'accorduñu ci ndax nee nañu loole nag trahison bu mag la maanaam wor la ndax dañu leen a waxoon ne dañu leen a recruter ñoom nee nañu mbetteel dëggantaan la ñu am ci mbir mi yéen a kaay gi de la Soleil xëy dañu xibara naan ñu Sénégal ak Guinée Conakry tey ji la Aliou Cissé nee na dafa déséquilibre Libre ndax absence journal bi ñu xëy fekk fa Kaba Diawara mi nga xam ne mooy entraîneur Guinée Conakry daan nay wax ne match bi nag njort na ne ci fair play la ñu koy amalee yéen kaay gi di record xëy duñu xibaar naan ñu Sénégal dafa war a ngir nag dem ci huitième de finale yi journal bi di sunu làmb nee na combat Modou Lô ak Ama Baldé ndax mën nañu ko amal ci arène nationale bi. Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak Zahra Iyane Thiam nekk candidate ca mairie bu Sicap Liberté moo leen doon may seen revue de